Assez de vos querelles. Assez. Alors, brillante et vaillante, militante, Chacha, qui a été sauvagement brutalisée par les forces de l'ordre. L'heure de la réconciliation, du redressement et du recentrage de notre pays est plus que jamais arrivée. C'est le sens de ma candidature et l'essentiel vers lequel nous devons toutes et en but, une fois, vive la République, vive le Sénégal. maa Mangi nuyu Sénégal sénégalais yëpp ak sénégalais Dit di sant

ak waa Sénégal ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew leneen li it war a tekki tekkaaral bi mooy kenn dañoo yóbbaalewul ci dara du ñu ko dal ni ñu waxee woon ne doonuñu bu ma sàmba doonuñu bu ma dem bu askanu Sénégal la doon dañoo jóg bàyyi li ñu nekkoon ànd ak sénégalais yi ak sénégalais yi nga xamante ni li ñuy dox ñor na leen ngir ñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom moo am ci réewum Sénégal loolu moo tax bëgguñu ku ñuy yóbbaale ci loo xamante ni xamuñu lu ñu doon xamuñu kan moo ko yëkkati xamuñu kan moo ko yëkkal xamuñu fu mu jëm loolu moo tax ñu ne woon ba tey jii ci bés bii nga xamante ni bés bu am solo la di bésu 25 février 2024 ñu waxante woon ci ak sénégalais ngir lii ñu jëloon dénk ko Sénégal. liñ jëloon dégg ko président Macky bés bi nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ leen ko waroon a delloo ngir li ñu sénégalais yi waxoon ne bés bi ci lañ ko waroon a jël delloo waat ko ñi euh, kàddu delloo ko askan bi askan bi tànn nag ki nga xamante ni moom la bëgg mu jiite ko juróomi at yi nekk suñu kanam loolu lañ président Macky Sall xañ Sénégal

ba ay ndawam amatuñu yaakaar ay magam amatuñu yaakaar ay jigéen amit amatuñu yaakaar ñi nekk ci jàng njàng mu kawe amatuñu yaakaar gis ngeen fan yi ngeen gis bataaxal muy wane ne ñoo ngi tijjiwaat université Cheikh Anta Diop waaye université Cheikh Anta Diop ba mu tëjee it ba université Gaston Berger tijjee yëngu-yëngu yi ba mu fa amee dégg la ñu defal ci étudiants yi rey étudiant des étudiants bu jóg dem ci université pour jàngi dee taxul dee yóbbu la xam-xam moo la ko yóbbu te loolu du lu bees lu jàngale ci réew mi kon université jàpp naa ne 2024 mille bii politiciens yi war nañu góorgóorlu ba bu ñuy def seen i mbir ñu épargne ci université yi ba kuy dee ci dootul doonati étudiant bu ñu sañoon kenn du dee ñun li ñu wax boobu ba tey moy buñu ne sañoon kenn du dee ci politique depuis mars 2021, le Sénégal daanaka lu toll ci téeméeri nit faatu nañ fi ci loo xamante ni jàpp naa ne ay immaturité homme politique yi rek ñoom ñoo leen ko 1962 la ñu njëkk vivre les premières violences politiques au Sénégal 62 xëy na sax am na lu ko jiitu 62 la ñu lakk ay bureau de vote ci saint 62 kon violence boobu lan la lan lay

da ngay da ngay da ngay violence ak forme bu mu mën a doon nag laa wax forme bu mu mën a doon ñun dañ koy condamné amoo boo mën a nekk ci réew mi def politique te boo defee lu dul yoon duñ la ne li nga def du yoon amoo boo mën a doon. kon Sénégalais sonn na. xabaar yi te loolu devrait économique bi jël na dessus définitivement pour élection jàllee mënuñoo nekk ci campagne électorale campagne électorale jamono bu ci nekk c'est pas possible dafay am jamono politique am jamono liggéey mais mënuñu saa bu ñu génnee ci ci benn kii politique bi dugalaat ñu ci beneen ba nit ñi du ñu mën a am jotu def li nga xamante ni moom la ñu bëgg a def mooy def seen liggéey donc vraiment ça suffit largement te loolu euh, ñi nga xamanteni ñoom politiciens professionnels ak ñi nga xamanteni ñoom ñoo politique ak les rentiers de la tension yi nga xamanteni bu xuloo amul ak politique amul du ñu ñoom ñoo bëgg suñu réew ñoo suñu réew donc te loolu jàpp naa ne doy de sëkk a de euh, leneen li nga na solo ñu bëgg wax li ñu le deuil de la politique de la démocratie loolu jàpp naa ne lu métti la loo xamante ni am na tey ci Sénégal 25 février 2024 loolu tamit ñu koy naqarlu bu baax ndax tey rendez-vous bu am solo la may nuyu suma waa dëkk muy waa caajaay yi nga xamante ni tey bis dañu waroon a xëy dem vote ji mu nekk une fête de la démocratie ñu saafonte ak mbokk yi ñoom ñëpp ñu ko doon te comme ni may masawoo waa Sénégal yëpp leen wax ne nañu defarwaat gën a taxaw xam ne bés du ñàkk élection yi foog ñu jàpp date bi dem ci élection yi ñu soppi li nga xamante ni moom moo fi nekk bés du ñàkk kon kon euh, ñoo ngi leen di gërëm ñoom di leen sant ci seen taxawaay ak seen gunge ak ni nga xamante ni ñooñu noonu la ñu jàppale di leen masawoo tamit ci seen coono yi nga xamante nii benn bokk yaakaar moo leen ko teg depuis 2012 may masawoo waa Thiadiaye noonu lay masawoo waa Sénégal ñëpp ndax ñëpp sonn ci ñoom. ni ma ko waxee woon keroog assemblée nationale def naa tuuru Sénégal bu dul benn du ñaar waaye nee naa leen keroog ci kaw assemblée nationale bi ñu jàllale seen loi boobu ne leen ñeenti Sénégal yu ma dajeel ñett ñi pare nañ ci benn ci benn bokk yaakaar kon les gens aspirent à autre chose. nit ñi bëgg nañ ñu gouverner leen neneen nit ñi bëgg nañ guerre jóge fi nit ñi bëgg nañ euh, mal gouvernance jóge fi nit ñi bëgg nañ ñu yor Sénégal yor bu mucc ayib loolu moo tax dialogue bi ñuy woote ñun jàpp nañ ne dialogue lu am solo jàpp nañ ne waxtaan lu am solo waaye nii ko politicien